chercher la lumière de point parce que l'on sait où l'on est. Chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Parlons Jeunes. Parlons Jeunes de nouveau au Parc d'Anne. Parlons Jeunes aussi de nouveau avec d'autres jeunes pour discuter aussi de notre thème qui intéresse les jeunes. Cette fois-ci, en fait, l'Ignara Wartane, moi, un petit peu les jeunes qui sont dans les communes d'arrondissement, donc en fait, responsabilité, nek conseil municipal. t'as dit, c'est une émission Parlons Jeunes. Parce que d'ailleurs, cette lutte un petit peu, euh, depuis l'élection présidentielle 2012, beaucoup de jeunes se sont intéressés en fait à la chose publique, hmm, la gestion en fait de leur, euh, de leur denier la gestion euh, des communes la gestion en fait de l'État aussi de manière générale nous gis ni je yu bari pas de dire bëgg xam un petit peu l'État nan lay l'État itam nan lay gérer sen bir ay sen alal ci biir loolu mu am ay entité de décentralisation yi nga xamante ne dafa leen gën a jege muy ay commune donc jeunes yu bari bëgg a nekk ay conseil municipal ñu dajale ci tey ki nga xamante ni moom mooy Lamine Diagne nekk euh, commune bi nga xamante ni moom mooy par euh, commune Parcelles Assainies donc Lamine maa ngi lay dalal euh, jàmm ci biir émission Parlons Jeunes. waaw ñu ngi lay fay Babacar di la nuyu ginnaaw bu ñu sante yàlla di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa di nuyu waa LCS ak seen téléspectatrices yëpp ñi nga xamante ni ñoo ñoo cee ñoo koy seetaan bi ma jógee di nuyu sama aussi tamit co-débatteurs yi nga xamante ñom la laa fi nekk di ay jeunes ay responsabilités respectives ci sen commune. Euh, alors merci beaucoup. Alors euh, notre euh, dame ou notre jeune <laughs> jeune dame en fait de l'émission euh, Codou Diène jógee ci mairie point 1 n'est-ce pas donc mang lay dalal jamm ci bir émission Parlons Jeunes.

te jaarale ko si télé LCS de se remercier di nuyu tam bu baax commune buñu ñu moy mooy di nuyu population bu fa nek yépp di wax machallah dal euh, ñong ci ngi biir émission bi merci beaucoup alors l'année lan expliquer euh, le fait que je a été intéressé euh, à la gestion en fait de la chose publique alors code un petit peu dans votre euh, commune c'est vrai que conseil municipal wala politique mais vous xam premier mandat en tant que conseiller municipal effectivement premier mandat en tant que conseiller municipal d'accord léegi lan moo par exemple nga bëggoon nekk conseil parce que politicien woon nga avant wala da nga jékki-jékki ne ok dama bëgg a ci affaire qu'est-ce qui a fait ça. en fait en dehors même de mon de, de mon statut de politique dama nekk. après ah, euh, non de ma politicien politique là waaye waa d'accord. accord <laughs> yéen a ngeen compliqué waa d'accord. <laughs> en fait en dehors de sama statut politique dama nekk ndaw boo xam ne dama juddoo commune fan Point Amitié Yero fa màggee fa gis tamit ne suñu commune dafa am ay jéego yu rëy yoo xamante ne daf ko soxla en terme d'éducation, en terme de santé en terme d'infrastructure aussi ci kaw loolu ma bokk tam ci jeunes yi nga xam ne duñu gëm ne jeunesse bi moo war a moteur de développement ma am ma am yaakaar ne tamit su ma ci dugalee sama loxo ci gestion collectivité à ah, prétendre à une commune émergente. d'accord mais parce que vous euh, un petit peu euh, hein? c'est plutôt social si je ne m'abuse fait si j'ai bien euh, compris en fait ce que vous euh, côté santé uh-huh. quand je fais allusion au domaine de la santé c'est juste euh, pour attirer attention Niti par rapport aux soins sanitaires parce que contrairement à ce que tout le monde pense commune fan Point Amitié dafa commune dans les années 60 c'était considéré comme une commune résidentielle ouais demande sociale à Mhm, d'accord quand tu ci dinañ tout euh, de tuuti alors Lamine je voulais xam un petit peu au niveau de de de parcelles hein, des Parcelles Assainies euh, quest qu'est-ce qui t'a motivé à devenir un conseiller municipal. Bon, voilà, donc ce qui motivé, tout d'abord, euh, je n'étais pas politique auparavant. Mhm. Donc, dans mon école, dans le lycée, mhm. bon, par la suite, nous eu foyer, de le président foyer. Donc, c'est là donc une expérience. Donc, j'ai eu cours privé Ok. Cours privé donc euh, Donc, parcelle, Une parcelle, une D'accord. Donc, foyer dem jël foyer bi ci ci koo xamante suñu grand la woon yore terminal bi ma nekkoon ma don def 4e secondaire donc yore ko pendant presque 3 ans 4 ans donc ci la amé donc ben expérience biñ fi fa donc créé donc ci suñu koñ association donc AJDPA, euh, euh, Association des, jeunes pour le développement des parcelles assainies. Donc par la suite, en 99, il a dougué dans la politique, il ne faut pas pour moi de politique parce qu'il fut quand même le trésorier quand même de la section communale du, euh, PDS, donc aux parcelles assainies. D'accord. Donc il a annulé le député, le, maire Moussa Assi, mon responsable communal ou jeunesse pour parcelle. Nous dem noonu di renouvellement jeunesse PDS am mu donc euh, léegi remplacer ko parce que dafa atteindre le limite d'âge nous avons ci lolu ma jëlaat départ fédération bi dem ba nek département Dakar euh, di xëccoo responsabilité des dem ba Igitel mhm. donc responsabilité bobu ci la nekkee ba nek conseil municipal. Mhm. parce que ku nek responsable aussi jeune. qui suñu PDS. Mhm. donc il faut que euh, nekk conseil municipal pour représenter donc la jeunesse au niveau du conseil municipal. d'accord donc vous comprendre bu politique moom moo moo la quoi parti démocratique sénégalais nga bokk waaye politique conseil municipal. Mhm. donc 2009 2014 ma nek adjoint maire. Mhm. donc 2014 jusqu'à 2010 aussi ma ñëwaat nek adjoint maire encore. instant adjoint maire en tant que jeune. oui ah. euh, en 2009 2014 j'étais l'adjoint maire le plus jeune au Sénégal. instant bi nak waruguma parce que amaguñu statistique. <laughs> d'accord d'accord alors euh, Tierno, Fall ma bëggoon xam euh, yow la mo la motivé nga dugg ci ndax politique la ndax société civile nga jóg wa ndax rappeur nga parce que ya yaa na maar tey jii bokk ci affaire yi quoi. Yeah, yeah, yeah. di kon kontaan bu baax rek di wax man sama jaar-jaaru politique mu ngi mën a waxee rek dama nekkoon acteur de développement nekk sama commune yor benn association bu ñuy wax association des jeunes unis ñu ràññeekoon bu baax dëkk bi ma jiitu ko yàlla defoon ma jiitu ko man ak samay gars ñu nekkoon association bu dynamique di def ay yu bëri de par la suite sama nijaay moom njëkk a dugal si politique ma koy nuyu au passage muy ne LAC bu mu defee benn parti mu nekkoon URD parti Juboka mu ne ma booy kaay may tey ay pancarte di daw boobu xaw ma woon xaw ma woon luy politique mais par la suite ma dem ba si biir ma toog xam jàngat yor mbooloo bu bëri nag macha allah parce que xale yàlla mooy def loolu si nit ñu bëri wóolu ma di ma dénk seen affaire yu bëri ma toog benn paa ñëw na ma gis nga sama doom boo leen politiqueul dugal leen sa politique gis nga mairie bi ñeneen ñu jógee dëkk ma ne ah kon il faut ma adhéré parti il bu defee renouvellement yi passé yàlla def ma nekk euh, ñu ma nekk secrétaire général des jeunes ma représenté jeunes yu nekk Dalifort yëpp ñoom ñu wóolu ma muy parti parti socialiste parti socialiste boobu yàlla def jeunes yëpp wóolu ma bu ñu waxee kan ma war a nekk secrétaire général des jeunes ñu laaj jeunes yu bëri jeunes bu ñu laaj ñu mën a Thierno Fall doy nañu Thierno Fall doy nañu Thierno bu mbégte bu rési man bu defee tamit euh, renouvellement mu jaar yoon ñu ñu dénk ma ñu dénk ma rôle boobu no responsabilité boobu muy secrétaire général des jeunes parti socialiste au niveau de la coordination coordination B de Dalifort Foray nga par euh, si la élection il daf ma liste bi conseil municipal ma conseil municipal ma conseil municipal le plus jeune nañ wax Sénégal mais suñu commune le plus jeune xam naa statistique yi génnagul mais xam naa maa nekk le plus jeune si biir loolu tamit c'est la gérer fonction commission jeunesse sport et loisir si mairie si commune Dalifort bi yëpp moom maa ko gérer mën na ànd ak si ay xale yu baax na xale yoo xam ne yu takku yu mun a liggéey loolu daal moom gën a si politique beneen tam mooy dama nekkoon acteur de développement fu ma dem rek ñuy développement association. yi boo ma ne acteur de développement ça ça veut dire quoi da nga ban association la woon lan ngeen doon def euh, euh, spécifiquement. waaw dañuy euh, suñu association moom tuddoon Jeunes Unis mais dafa amone yene association yu dem ñu nekkoon Dalifort lépp lu ñu booloon mu Dalifort développement muy DD ñi dañ doon yëngu ci éducation ñi yëngu ci culture ñi yëngu ci sport ñi ku nekk daa am domaine bu nga yëngu ñun dañ doon yëngu ci sport des fois dañ doon def ay social def ay don di jàppale nit lool yëpp lool moom gënoon motivé nak ba tey jii benn FEDAF judd ben association bu ñuy wax FEDAF e mu judd fédération des associations de Dalifort mo bokk ci tamit ba pare nekk ci vice président té ñu bëri dañu waxoon Thierre nekkal président parce que mënu ko jité ma mënu mo jité fé jité fé kon nañ bay kenen jité koko jiite mo nek vice président mais tay ji kooko sax dem na ba ci biir na ma tier nexu ba nexu yay président kon ma sante kon luy woné rek moy liguey bu moy liguey ci côté jeunesse bi ak engagement bu mu si def détermination bo mu gëm ak gëm-gëm bu mu gëm Dalifort gëm né man dama nek si dama bok dama nekk dama bok ci jeune yo xamné ño wara développer commune Dalifort tey moo ma may luma am ni quoi diko sante yalla bu baax nak d'accord merci beaucoup alors Codou si j'aimerais savoir par rapport à ça en fait ñeen ñep lima bu mo féké comprendre na li ngeen bëgg wax moy dañoo dem ba en un moment japp ni war nañu mën a bokk ci ñi ci ñi ci ñiy jiite wala ci ñiy lijjanti en tout cas soxlay soxlay suñu suñu commune. est-ce que ci biir loolu politique rek parce que kii nee na moom <laughs> papaam politicien la woon kii tamit euh, après acteur de développement bon finalement mu versé dans la politique est-ce que politique rek moom mooy yoon mennum yoon bi nga xamante ne war nga fa mën a jaar pour pour pour mën a bokk ci li euh, liggéey sa commune. Euh, en fait si le bu Sénégal fonctionne, fonctionner euh, nañu politique nous la permettre accéder vraiment à l'instance de décision Nous ndax bu ñu les lu comme je le la euh, je suis politique je fais partie du parti Social, fais partie du parti excusez-moi de la répétition liste taxawu Dakar taxawal Dakar ak Khalifa Sall moma permettre ma accéder ci conseil municipal bi waye tamit lolu dafa fekk ni ah, tu es politicienne mais dama. <laughs> je suis politique <laughs> waye lolu dafa fekk ni tamit ma amone ay ambition noble pour quartier pour gox bi ma dëkk dama bëggone développement sama bir gox bëgg tamit émergence sama biir gox ma yaakaar comme nima ko waxee sank ni su ci dougalé sama loxo ak sama savoir faire tant soit peu dinañ mën am da situation bu xaw a tane. alors si je veux comprendre bien est-ce que par exemple yo nee nga ma sa papa nekkoon politicien ok en tant que jeune nga bëgg a ok joggé ci euh, foyer école ah, nga testé sa bop tuuti nga ah légui warna warna war dem nak ce papa nekk na par exemple politicien est-ce que loolu ça justifie le fait que yow pour que pour que nga meuna a dara par la force des choses nga da nga war politicien. Oh, c'est juste qu'il faut que me recadrer quoi c'est pas ça sama papa fa nekone euh, trésorier section communale ou PDS. d'accord politicien d'accord. ok légui maintenant ah, donc alternance xam nga ni bon en 2000 jeunes yu bëri fa fallait nous commencer euh, ci mëne ben combat. Mhm. conviction moom taxone taxoon gars yi duggoon si. Mhm. man par conviction la laa ci duggee woon parce que amone na luma bëggone changement sama deuk donc il fallait que man gëm ni bon former taxaw naa ci école yi gëm naa ne war naa mën a nekk ëllëg dara donc c'est la mën nga wax quoi nga wax parce nga wax association dem naa diriger foyer école te gis ngeen foyer école nu mu méttee donc par la suite je me bien très bien formé donc je me suis dit pourquoi ne pas quand contribuer dugg ci biir politique bi donc ci laa duggee ci biir politique mais pour me revenir un peu c'est pas parce que euh, da nekk politicien mën a egg ci yenn instance parce que comme ni ko waxee ñun ñoo bokk même liste taxawu Dakar ñun suñu bi ñu nekkoon da nga xamante ne Moussa Sy moo nekkoon ci boobu bi am na ñoo xamante la majeure partie investir nañ leen ci ci liste soit ay groupe ay mouvement ay groupement euh, de femmes la wala soit ay mouvement associatif ba ci ñi nga ñoom ñooy nekk ay responsable marché te la majeure partie mosuñu def nekkuñu ay acteurs politiques donc ñoom moment boobu li ñu soxal moom moo képp koo xamante ni euh, a acteurs yi nga xamante ni ñoom ñooy mën a tax askan bi wala gox bi mën jëm ca kanam mais c'est pas parce que da ngay politique wala politico rek war nga mën a conseil municipal conseil municipal mais képp koo xamante ni pare nga pour servir sa askan pour servir sa gox pour mu mën a dem ca kanam. léegi Thierno maa ngi maa ngi bëggoon xam. un petit peu lan moo tax yow par exemple. nga tànn parti socialiste la moo tax nga par tànn par et pourtant lu tax defoo comme waaye Y'en a comme que affaire bi conviction la. xam conviction mooy gëm-gëm. dama gëm ni mbir yi dafa war a changer dama gëm ni mbir yi dafa war a pourquoi par exemple parti soci c'est-à-dire parti politique nekkoon. Euh, menn bànqaas bi nga xamante ne war nga ko mën a ja war nga ci mën a jafandu pour mën a àgg fa nga jëm pourquoi demoo waa Y'en pour marre pourquoi euh, affaire u développement euh, communautaire yi ngeen doon def noonu pour pourquoi créé leen ci benn liste ngeen dem ci ngeen dem affilié bokk ci benn coalition après ngeen dem soit ngeen nekk conseil wala du ngeen ko ne pourquoi ngeen dugg ci parti waaw parce que instant noonu dama gisoon parti socialiste moo ngi nekk Dalifort te moo ngi doxal mission demoon nañ ba si biir soxla woon nañ benn représentant jeune ko xam ne mooy gérer jeunes yu nekk Dalifort yëpp te plupart jeunes yu bëri bëgg nañ adhéré si parti mais dañuy dañuy teg ne parti dañuy yàq wala dañuy teg ne parti dañuy jël xale yi former leen ba pare sànni leen wala dañuy tegoon politique gëmatuñu woon politique ne mun na euh, am na ay côté yu baax te politique mënoon na defar par la suite amee conviction ma ne lii dama si dugg te gis naa si njëriñ tey defar te si ma si duggee gis ba ñu sama morom yu bëri tey jii ñemoo ñu dugg parti ñemoo nañ parti ndax gis nañ man dugg naa si parti maanaam pour wala la rek parti parti euh, politique nekul parti bo xamne nak ñu bari bot buñ koy xolé moy dañuy formé wala étudiant la wala dañuy buñu falé rek faté la fuñu buñu falo rek faté la non non mais mën nga ci dugg dévorer ci am ci formation ba paré di jëfar ñeneen di jangal ñeneen di jox ñeneen formation loolu moom gënoon poussé ma dugg si parti socialiste. d' accord léegi euh, code bu bëggoon xam en tant que jeune est ce que c'était était facile euh, yow dans dans le groupe de tes amis ah de tes copines est ce que c'était vraiment facile quoi peut être que même avec euh, le mari ou le copain est ce qu'il le voit bien non est ce que c'était facile. <laughs> en fait au début ce n'était pas du tout facile waaye man. jaaxaluma woon ndax bu ma defee tuuti jeunesse quand j'étais en troisième année dafa am sama benn prof bu ma doon wax souvent ne ma code du yow ba fi ngay mujj di nga mës a politique motax <laughs> motax man xamoon na am touti difficulté au début mais après euh, dama dan trouver les mots adéquats pour convaincre sama natango yi sama morobe yi ndax euh, dama am chance tamit nek ci koñ bo xamantene dafa am ay jeunes yo xam dañu am ambition jeunes yo xamantene ne dañu bëgg dimbali sen gox jeunes yo xamantene dañu am idéologie bi nga xamantene moy buñu bu ci gox dañuy def lépp pour jëriñ gox bi lolo tax ñun amuñu won vraiment problème noonu pour convaincre suñu natango ak yi. D'accord après ils l'ont accepté.

conviction la quoi d'abord nit lu muy dugg te amo conviction do dem donc des fois dina am ay haut dina am ay bas des fois nga découragé des fois do découragé des fois li lay motiver comme niko ko Fall waxee am ay jeunes yu lay gis ngay ñafé di liggéey nga nek sen service di réussir chaque fois bu ñu problème nga taxaw ci lolu yeb ay jalon la yo xam boo tek au fur et à mesure rek da ngay gën di am motivation da ngay gëna a am encouragement pour gëna dem ci kanam quoi donc euh, c'est vrai que nak nga nek xalé nek ci milieu mak day metti souvent. loolu dina bokk ci li nga xamante ni mooy ñuy gën a tax ñun ndaw ñi. ok léegi ma laaj la foofu benn affaire c'est-à-dire en général xam nga nga nekk jeune ne dama bëgg a def politique. waay day ni xam nga fi nit ñi di xalaatee. waay kii moom il sera un grand. waaw mais mais un grand menteur loolu la ñuy xalaat quoi. non xam nga xam nga xam nga uh-huh. conviction. Uh-huh. nit boo gëmee dara parce que man politique dafa am euh, dafa am lu ñu ci jàngal. Euh, wax dëgg parce que man sama référence dëgg-dëgg ci politique Moussa Sy la. lu mu meti meti meti, metti lu mu neex neex dalay wax deug bi élection joté wala dara bu joté da ci pas ke degam deugum la nawe. Dong ñi kau dengan politik, fekkon den politique ñaka baña wax deug la gën je pense que politicien yu bari du ñam c'est vrai que nak nit ñi dinañ soxla dara ci yow ñu wax la lu digle digle lu bari am espoar bo dem ba ci biir duñ ko mën mais ñun lu ñu jangal depuis biñu formation PRS dem ba tay ji nek tay ay ay responsabilité ba actuellement au moment où je parle avec vous mairie parti assini bo fu ñé fekk ma sama bureau wala nga nekk fa beneen adjoint mënoo laa wax loo xamante ne duñ ko def te et puis duñ la promettre lu ñu on préfère sax bañ la promettre dara wax lañu la d' accord dinañ ci dox dem ba mu réussir ñëw ni la lii ak lii réussir nañu ko fii ak fii réussir ñu mais li ñu bañ mooy ëllëg parce que ma jox la exemple pour libérer un peu la parole man parcelle dëkk euh, sam papa fa am 15 sur 10 mënu ma concevoir mën naa ngi maa ngi am nekk président ASC yore di di dem géej gi football lii may ñëw tey ay supposons que am jeune boo xamante ne dama ko fenn waxuma ko lu dul dëgg suba maamoon ñu daje géej wala ñu daje plage wala ñu daje soirée wala ñu daje jànge man boobaa nan laa koy xoolee. donc je préfère lui dire la vérité pour que ëllëg bu ñu dajee ci milieu yooyu. ma mën a siggi xool ko bët ak bët. donc ça principe la conviction la ci man. Ah d' accord léegi mu bëggoon xam euh, léegi pare ngeen du bokk nga ci parti politique jeex na léegi dugg nga ci biir y' a aucun souci léegi li desoon mooy. ok war nañ dem ay élections dañu wara dañu wara gérer nga ni man war naa mën conseil municipal. C'était pas audacieux c'était lu leeroon la sa bop la c'était audacieux lan la lan la won après. sànq rek ma nglay wax dama nek ci parti socialiste mu nek parti bu structure structure bu extraordinaire lañ am boo dem par euh, boo nekkee parti socialiste bo dem élection dafa am ben liste bu ñuy taxawal bu ñu secrétaire général coordination bi kooku il moo c'est le plus grand moom comme ça exemple le maire moom mooy euh, ñu ne ñu ne présidente des femmes moom mooy ñëw ñu ne après lañu ciy teg secrétaire général des jeunes et le représentant des jeunes c'était moi man xamoon naa yàgg-yàgg maa ngi nekk troisième damay dugg damay dugg ñu après lañu ciy teg ñu ne où est la présidente des euh, des jeunes filles moo ci top kon participer si parti rek la ñu mënoon amee loolu dañ gëmoon ne foofu la ñu ko mën amee parce que lu bëri la nga doon gis da nga gis suñu grand yu bëri na la ñuy def rek dañuy def mouvement mais bu ñu defee mouvement du nekk parti du am structure

ah bari Sénégal un ah. ah. wax Je ne bari pas euh, ministre mu ngi très sincèrement en plus sax li ci doy mu ngi un ah, voilà est-ce que le fait que par exemple. il n'y a plus d'emplois Beaucoup de jeunes sont devenus de grands chômeurs. Hein? Moi, je ok, comme que fille, amul nga nga am métier amul nga ñàkk am métier na nga mën a wax na nga rëy laamin rek moo tax jeunes yu bari léegi nañ nañ nañ dem bokk ci nañ dem rallier leera rangs <laughs> non bu ma déggee nga am discours yow est-ce nga xalaat euh, bu ma déggee nga am discours bii daf may xaw a jaaxal tuuti ndax euh, ñàkk euh, emploi jombul kenn te bu ma jëlee man sama exemple bokk yàlla dogal na j'ai eu à faire une amna sama ay diplômé, mais li tax ma bëgg def politique moy je trouve que c'est quelque chose de très noble parce que la politique c'est l'art de s'impliquer dans la gestion de nos cités c'est les grandes théories c'est parfaitement c'est les grandes théories mais concrètement loolu la politique man d'accord avec ak ñi nan, politique du dëgg je ne suis pas d'accord parce que Taïdini, en face de nous nous avons des personnes averties Taïdini, nous nii munoo wax kenn ne nañ waxante dëgg parce que tey jii nii boo waxtaanee ak nit war na mën li ci bax ak li ci bon tay bok ci sama yaakaar bu gatt bok politique nak wax dëgg lu noble la te dañu wara remercier bu bax homme politique yi moo tax sànq ma lay wax ne du ma politicienne politique la d'accord la même question hein est-ce que du parce que voilà fenen fi da feneen fi ça a échoué après moo moo ngén ngén ngeen dugg. non non xam nga xam nga xam nga sank Babacar wax naa la ko nee nit limuy muy dugg te amul confession du dem c'est-à-dire que

l'ambition doit correspondre au moyen nit boo nekkee ci mbir di ci évoluer normalement boo demee ba nekk ci yenn station yi aussi dafa war a feeñ ci yow ça c'est fondamental mënoo nekk di liggéeyal askan wi c'est vrai que ni nga di nga nekk ci askan wi di sonn ci ñoom di reyante mais à un moment donné aussi tam il faut nga montrer ne aussi responsable nga responsabilité yooyu aussi dafa war aussi ci sa comportement dafa war a feeñ ci sa nekkin dafa war a feeñ c'est pas parce que nga dem ba exagérer c'est pas parce que nga dem ba jël alalu askan wi jaawale sa alal ak alalu askan wi mais man man tey man mii politique bëgg cité bi développé mais man bëgg naa personnellement aussi man avancé waxtaan aussi wax dëgg si lañ ay jeunes lañ bëgg naa aussi ci li may avancé mu am ci man njëriñ bëgg naa ci li ma nekk ma gis ci sama njëriñ mais su ma ci gisee sama njëriñ c'est pas parce que dama ci jiital sama njëriñ mais tay parce que assine avancer man sama avancement la tey mun naa teg ay conditions yi nga xamné permettre ay jeunes yi nga xamné euleuk buñu avancer man damay avancer suma ma avancé wulee mbokk mun nañ ci avancer wala samay dëkkandoo avancer wala samay rak avancer absolument parce que l'intérêt général moom implique tous les intérêts particuliers moom mooy tax mu nek intérêt général là je suis tout à fait d'accord accord ak yow. légui Thierno mo bëggone xam euh, ok légui nek ngeen maintenant ay conseil municipal mhm. ah ngeen ñëw gagner mairie bi ñëw et tout ça euh, comment ça a été accueilli yéen ngi doon xalaat ne est-ce que dinaa bokk ci liste est-ce que dinaa bokk ci euh, ci est-ce que dinaa nekk conseiller wala parce que après affaire de liste la wala c'est parce que tout simplement seen liste jàll na rek man sama position dina ma permettre yéen ñëpp seen xel daloon na par exemple ci ni di ngeen nekk ay conseiller waaw gannaaw ba seen liste yi jàllee waaw noonu la xam nga dañu nekkoon liste majoritaire ñun duñu tapet dañu am fit ñeme parce que tapet yëpp ñoo dem làqatu liste proportionnelle mais ñun fit bu ñu amoon ak wóolu suñu bopp wóolu suñu candidat lu lu ngay dem nga ne wóolu sa mbër dañu wóoloon suñu mbër moo tax ñu nekkoon liste majoritaire te boo gañee liste majoritaire bu jàllee yéen ñëpp da ngeen nekk conseil 46 ñun suñu suñu bureau municipal 46 conseil la 46 conseillers boo ko divisé par deux day 23 23 23 non si suñu euh, majoritaire 23 le proportionnel 23. yow ban position nga nekkoon. Ah, maa nekkoon septième position. ah d'accord. ma maa nekkoon septième position léegi majorité bi jàll ñu ne dañuy jàll. boobu directement dañu rek dugg automatiquement rek da nga dugg conseil. D'accord. accord la nouvelle comment était comment <laughs> nan lañ accueillir une nouvelle bi à la maison xarit ak affaire yoyu nan la fa démé won quoi au début. Le conseil municipal. <laughs> non demewul non sax parce que au début suñu wa kër. ñoom xam nañ ñoom xam nañ xam nañ sama qualité. Mhm. wóolu nañ ma sama copain yi sama gars yi wóolu nañ ma. Mhm. ñoom ñu bëri xam ne Thier bu duggee si politique dina am dara. sa xeexkat nga quoi waaw parce que ñu bëri dañ am dara. xa neex nga Lamine quoi. neex non nekkul question neex Lamine rek mais xam nañ ne Bozor laa xam xaritu gars yi d'accord ñoom gars fu ñu fréquenté dama leen naan doo caayin nekk ak ñoom yëpp gaayin boo duggee Dalifort tey ji doon na Thier mu ne def na problème lii wala tëj na fi lii wala def na fi kii sànq damay rejoindre kii euh, si wax bu mu wax mooy mooy mun nga nekkul nekkul ku nekk mooy def politique rek réussir nono non am na ñoo xam bu ñu defee pour politique ba ba ñuy dee duñu réussir parce que xamul tax dañ leen dénk keesu mbooloo ñu lekk ko wala ñu tegoo leen benn ñu ñu joxoon leen benn affaire boo xam ne dëkk bu ñu leen si waloon ñu trahir population bi mais kooku tey bu duggee si politique du dem mais xam ne yow lu ñu la nga doxal ko loo dugg mu dox foo dem mu am avancement koo àndal mu gagné kooku bu duggee si politique day am dara Babacar moo loolu moo ñu posé ñu am dara. d'accord Codouan la Euh, xam nga tamit il faut Babacar nga xam ne proportionnel nga nekkoon wala. Euh, majoritaire là je me rends compte que au delà même du parti socialiste on a le chiffre commun 7. Ah, man ah. ak sama camarade de parti bi. Ah, ça ça va pas dire grand chose non ah pas ça hein. non non non pas ça structure bi la euh, nouvelle bi dañ ko accueillir ak contentement bu baax il faut tamit nit yi comprendre que poste wala titre conseil municipal c'est pas une fin en soi coono kessela naxte yow yaay dem ci nit yi yow yaay djema jaamu sen soxla en d'autres termes yow yaay sen avocat kon nit yi mënuñu lenn luddul contane rek ci ci ci ci nomination bobu non mhm. D'accord. Euh, la même question, comment ça a été accueilli Bon, parce que man deux mandats la am mandature. Ah, okay, donc, en 2009, mandats. donc, euh, content on parce que je me représente à la jeunesse, nous sommes responsables jeunes du ñu dem ñafé force soo ma doon nekk adjoint maire comme si noonu la doon structuré bii nii ci laa gën a am maturité mais je l'ai accueilli avec toute responsabilité Je sais que peut-être li ma parcelle taxawu ko jeunes yi ci biir bi ak euh, taxawu ko askan wi looloo taxoon peut-être pas Parcelles Assainies le conseil municipal qui ci man confiance qui m'a aussi qui ma aussi tamit euh, ma aussi adjoint maire de la jeunesse donc je l'ai quand même accueilli en toute responsabilité Bini, en toute responsabilité. d'accord les yow ban bon poste ou commission wala lan ngay au niveau de la mairie de Dalifort. ma commission jeunesse sport et loisirs. D'accord. D'accord. Euh, Lamine Moi, je, euh, adjoint maire chargé de la jeunesse. De euh, Premier adjoint, deuxième ou troisième Bon, cinquième adjoint. Cinquième adjoint. Cinquième bipassé, cinquième cette fois-ci, parce que mhm. structuration, là, non, le demeure. Mhm. Donc, chargé de la jeunesse, de la vie associative et d'éthique, TIC, bi emploi, jeunesse, actique. D'accord, Légui Je man mangi ci commission insertion professionnelle et formation. D'accord, alors Légui, ma bëggoon xam on on on y va avec euh, toi chers téléspectateurs Malgré ngi fatigues, di de ni émission parlons jeunes alors tu dit que nous recevoir des jeunes qui sont dans les communes donc étant des des conseillers municipaux alors code du ma bëggoon xam euh, Légui ces implications, ça, en fait, ça dépendait de, quoi maintenant Ça dépendait euh, de ta position politique dans le parti, ça dépendait de tes compétences, ça dépendait de quoi Parce que le discussion, là, après, il y a par rapport à la posture que tu dans l'architecture euh, de commune. Euh, politique comme administration. En fait, euh, d'où raison comme ni ma la ko waxee rek ci njëlbeen bi dañu nek ay jeunes yu engagé am ay ambition yu non pour ah non non mais d'accord mais discussion tamit amna <laughs> les gens ont dit code ah non non non c'est l'ami du Mera ah, Codou c'est une grande politicienne faut la mettre devant non non même pas douma ma du du lolu dañ ma dugal ci liste yi parce que xam nañ ne gëm nañ tamit ne mun naa am apport bu symbolique ci gestion comme commission insertion professionnelle lu tax euh, ma dugg fa parce que kenn dugalu fa man ma xol waaw man ma xol ba mu neex ma ma dugg fa ndax euh, dama gis ne suñu biir commune am na jeunes yu bëri ñoo xamante ne dañu jàng ba am seen ay bac am seen bac mais du ma ne sax amuñu moyen ñu fayee seen études supérieures yi ndax ñëpp fii xam nañ ne études supérieures dafa cher waaye ku leen jàppale woon. ci fayal leen ko parents dinañ mën a soulager wu ñu ñëw encore une euh, insertion professionnelle il y a beaucoup de jeunes qui ont des am diplômes ils ont du talent et tout mais ils ne trouvent pas encore du travail Les man qui sama en commission je suis en train de réfléchir sur une plateforme pour xamante dina recenser l'ensemble des étudiants qui sont dans la commune qui sont chômeurs wala ñi nga xam ne jotuñu sax exercer un, emploi comme ça nous pouvons démarcher au niveau des entreprises. est-ce que commune peut donner un emploi je pense que ça relève en fait. Euh, euh compétences de l'État. Euh, en fait surtout qu'on entend les ministre de la jeunesse en mhm. parler beaucoup. xam nga euh, mairie vocation c'est sax euh, création emploi waaye tamit mun nañ def activités transversales c'est-à-dire que a jeunes yi ci emploi mhm. dimbali leen pour ñu def ay de qualité on mhm. peut, leen tamit dans le cadre de nos projets financer des programmes mi pour tous. pour permettre leen ñu am ci lu ñu jàpp ni d' accord jàpp ci nawetaan yeeg euh, affaire yooyu. Euh, waaw xam naa ci kanam tuuti dinañ. d' accord encore effectivement alors euh, bataille, tey tamit avec vous Lamine c' était quoi en fait le poste lan moo motivé pour que yow nga mën a nekk cinquième adjoint au maire ba pare yore commission nga euh, non du ma boo adjoint mais mënoo nekk président commission. D'accord, donc ñu nga dugg ci commission yi liggéey mais mënoo nekk am responsable. d' accord léegi bon li ma ci motivé woon mooy d' position par rapport à la jeunesse parce que je suis quand même en naa pour me pour ma y a une ay responsabilité jeune jiite jeunesse parcelle donc il fallait que ait nekk responsable jeune il fallait ñu nous ko bureau municipal il y a le conseil municipal en tant que conseiller le bureau municipal donc moi je suis le maire ak ses ses ses qui, adjoints donc c'est ce qui motivé motive. ma et puis il y a une compétition il y a une jeunes yoo xamante ne nañ ko te une responsabilité jeune mais il y a moo il y kuy la mort, une koy fal je vais euh, précision bu may apporter par rapport à ça aussi tamit juste par rapport au code c'est qu'auparavant, euh, la mairie euh, euh, bon, n'était pas habilitée aussi à créer des emplois. Mais actuellement, avec l'acte 3 de la décentralisation, il faudrait que nous ayons bien mairie, en fonction du budget, nous avons la possibilité de recruter des jeunes. D'accord. De recruter non pas des jeunes, mais des emplois. Mhm. Donc, de embaucher les. Créer des emplois. Créer des emplois. Non, la création d'emplois, nous mhm. que des emplois. cest là qu'il faut que la mairie, le maire ou le conseil municipal crée des ressources. Mhm. c'est en fonction de. maanaam soit ressources yi nga xamante justement mun na nekk fi ñu jëlee xaalis mun na nekk créer ay ressources ci biir mairie. wala ressources yi nga xamante ni fa la mu améliorer ko. mais maintenant auparavant avant l'acte 3, trois maire euh, amul woon possibilité embaucher nit cela dit à que contrat rek nga doon am. d'accord et actuellement avec l'acte 3 trois de la décentralisation bu ñu neexee Moussa si bu ko neexee en fonction de son budget. mu jël nit embauché ko defal ko. CDI d'accord mais auparavant nous ko am. Le contrat à c'était limité à 50 000 francs mais quel que soit le budget que tu as mono dépenser qui qui fait niveau diplôme bu avons am. mënul mhm. dépasser donc. 50 000 francs nous avons dépasser mais maintenant nous mais la possibilité possibilité recruter nit en fonction euh, budget en fonction aussi l'équivalent euh, équivalent diplôme yi d'accord donc loolu aussi il faut ñu xam ko ak trois résoudre quoi. d'accord voilà y euh, yow une yore commission a ni. jeunesse d'accord léegi bon on va aller très rapidement actuellement lan ngeen def pour moi, a le commission boobu. commission bon. waaw ci vote budget dañu joggé commune d' dem commune de Pelentine 6 muy acte 3 bi bu ñu dafa dafa guñ def dara parce que suñu premier mandat la dañuy def dañuy def ay proposition duggal ko ci commission bi commission bi day proposer jox ko bureau municipal bureau municipal bu ñu voté ñu adopté ko lepp lu ñu après lu ñu mën a rek bu ñëwee ñu soog def ay activité d'accord légui est ce que en tant que commission euh, jeunesse et loisirs est ce que def ngeen ay proposition yi nga xamante ni jeunes yi dinañ ci gis seen bopp si parce que comme ni ñu ko waxé sang comme que comme emploi bi premier point dañu premier qui dañu def formation des jeunes parce que am na ñoo xam ne tey jii ñoo ngi bëri ñoo ngi commune bi amuñu formation amuñu leen lo xamné qualifié nañ parce que tam nit pour nga wutal ko liggéey tamit il faut mu qualifier ci ben domaine mais premier point dañ def ay formation jàppale jeunes buñu mëna mën am ay formation même buñu ñu leen wutalul liggéey dinañ mëna a fenen ñu liggéey fa parce que maire bi ñoom mënuñu fa liggéey man ñëpp mënuñu dugg si biir mairie bi liggéey fa ñu fa mën liggéey rek ñoo fa liggéey mais koo xam ne mënu fa liggéey nañ la fexe defar formation jël la dugal si yeneen zone boo fa mën a am liggéey tam nga am fa ko mais beneen bi tamit mooy prévoir nam tamit ay ay semaine euh, semaine sportive euh, comme comme am na yoo xam ne euh, am na genre domaine sportif loolu dinañ dinañ waxtaan tuuti alors code mu bëggoon xam n'est-ce pas que xam ngeen ni pour que jeunes yi mën a nekk jeune mën a nekk un il y a un quota xam ngeen quota boobu ñaata la quota quota bi ñu réservé la jeune. la jeune. Voilà. Euh, non vous ne savez bon ça dépend du parti hein. ça dépend du parti souvent bon ñun avons des nekkee quota mon na dañ naan bon des yi. ok léegi ma bëggoon xam un petit peu mine. alors par rapport à ce quota là est-ce que ça existe ça a en fait euh, dans votre commune pour que soit nga que. Euh, conseiller wala par exemple nga mën occuper ben fonction. bon man la ñu benn anecdote en 2009 bi ñuy dem quota lañ démé jeunes yi dañu doog doon presque à peu près euh, dix jeunes ci biir liste bi mais maintenant avec euh, la coalition donc taxaw Dakar cette fois-ci bi ñuy dem donc du won quota mais man dama bokkoon ci biir le représentant des jeunes ci biir coalition de parti bi donc fofu du woon quota mais dama doon kaas dama don ñafé fight pour jeunes augmenter donc euh, le nombre de cons euh, ouais donc loolu loolu loolu dama ciy wax wax wax ba jour sax bureau Moussa Sy laa ne ko ba ne génnal génnal sama bureau sur <laughs> sama bureau mais je le faisais par conviction parce que il fallait que aussi tamit jeunes aient une représentativité au niveau du conseil municipal. d'accord parce que aussi tamit Nek ay jeunes di ñafe. ban solo la je donne un exemple la majeure partie des électeurs ay jeunes

c'est que ñun il faut ñu gën suñu bopp mënuñu nekk di occuper donc ci ci seen discours yi rek la ñuy occuper place yi nga xamante mooy place yu gën a baax. mais quand il s'agit nag wàcc sur le terrain ñafe sur le terrain dañuy jël écarté ñu tegee ñu de côté. Mhm. yaa ngi rek c'est vrai que ndaw jotaay ndaw mag baax na fa.

kan lañ kan ngeen bëgg ñu àndal kan ngeen bëgg ñu def lii kan ngeen bëgg ñu def lii laajatuñu paay mais doom yi la ñuy laaj te doom yi ñooy jeunes yi boo leen bàyyee si ginnaaw rek da ngay da ngay il faut nga impliquer leen te ñun moom macha allah que suñu commune bu ñu yor moom wax dëgg yàlla moom la jeunesse elle est très bien

wax-ma commune nu muy demee ak affaire yow en tant que jeune comment tu vas l'expliquer. Euh, fonctionnement commune nak du lenn lu une gestion de proximité déglu population yi xam sen ay besoins té di ci dox tamit si suba ba ci ngone parce que tamit buñu ñu fàtte population ñoñu fal té dañu am obligation wu lijjantil leen sen problème améliorer sen carte de vie lijjanti problème santé éducation j'en passe kon euh, gestion communale gestion la bo xamante ñun ñëpp ñoko bok c'est pas une fin en soi moy ni ma ko waxee sànq te dama yaakaar ni maire ak équipe municipale bi yëpp yëpp yëpp dañu wara chaque fois di xol nan la def pour satisfaire population bi. d'accord la même question ban dégg-dégg wala ban gis-gis am ci.

da nga cee war a def à 100 pour cent ba mu am une satisfaction totale ci askan wi ak ci gox bi. d' accord donc. d' accord euh, Thierno mu bëggoon xam. waaw man lu ma siy wax rek mooy gestion commune soo déggee ñëw gestion commune rek gestion commune daa fu mu tënku si lu mu tënku mooy code des collectivités collectivité locale bu acte trois bi ren ñëw dressé mais si code yi dafa am loo xam ne comme sama commune nu ma ko waxee léegi euh, des compétences transférées si compétences yooyu noonu dafa am yoo xam ne ñoom ñooy obligatoire yooyu da nga ko war a def. xam nga am na yoo xam ne nag da nga ko war a def ba pare taxawu si su yooyu nag bu nga demee di campagne da nga ne nga ne commune bi fal leen ma ma liggéeyal leen li si compétence yi si domaine yi boolu ma falee naa si liggéey lii mm-hmm. léegi comme si biir gestion bi fal nañ la yow mii nag yaa war a amaat ngor delloo population bi loolu ñu la joxoon compétence yooyu ñu la dénk nga fexe lu mu ndaw ndaw nga def si ba ñoom ñu mën ko gis boo ko defee gestion bi leer d'accord léegi code au delà par exemple de, de du nombre de jeunes euh, qu'il y a dans dans dans dans dans le conseil municipal au delà par exemple des responsabilités que, que l'on confie aux, aux, aux jeunes je voudrais savoir selon vous euh, euh, ban taxaw la commune waroon gën a mën a taxaw en fait jeunes yi ba tey jii ñu gën ci mën a gis seen bopp comme ça te permet un petit peu de euh, voilà quoi la vision en fait que vous avez un petit peu par rapport à... comme nous, le touche personnelle pour améliorer. conditions de vie ou jeunes yi nekk collectivité locale en faisant quoi concrètement ci côté avant une subvention de 500 000 francs subvention chaque ASC 7 ASC 500 millions ñu leen doon en somme jëriñu leen dara on a porté ce montant là à 3 millions pour leur permettre 3 millions oh, man bu ma sañu sax ñu yok ko nak problématique de l'emploi dafa nek lu ñu sonal suñu quartier té ak 3 millions yoyu non ñuy jox ASC yi dinañ leen permettre ñu mëna def ay activités génératrices de revenus en dehors des nawetaan nak bu ñu xoolee 3 mois lay durer xawma 4 mois après mu jeex ñu dem toogaat seen kër di ñaanatu ak tok ci café 3 millions yi nak buñu leen ko joxé dinañ di créer ay emploi pour seen ay morom jeunes ñu ñëw encore euh, ci aspect formation bi nak une formation de qualité dafa baax si jeune nous avons défendre on a eu à donner 74 bourses d'études à des étudiants de la commune Nous avons encore euh, pour au Sénégal plus une bourse extérieure ça nous a coûté 50 millions.

mais dañu xam. bëriwul la loi hein. bëriwul ñu xaalis noonu mais dañu xam. fan lañu wara duggal a dugal koppar yi population yooyu ñu fal ça ne sert à rien ñu jël xaliss vite loger ko trésor tes populations baa ngi nii soxla ko ñu ñëw encore ci prise en charge lunettes yi bépp jeune boo xamante tu as des problèmes de vue boo xamante ne boo toogee classe doo gis bu baax boo approcher woo ci ñun au niveau de la mairie on te donne une prise en charge pour lunette nga Nous a gis bu baax pour suivre ces études en toute quiétude ah, ci activité transverse parce que fi nga dugg nii daf maa daf maa daf maa dama ciy sawar ci activité <laughs> laal nga ma parce que ci activité transverse yi ma la doon wax sànq ñun instant yi pour assurer la sécurité de nos administrés nous avons vraiment l'ambition de mettre sur place une brigade de surveillance pour assurer sécurité et administré ndaxte agression yi ça na saay saay yi une nañ ci brigade de veille boobu suñu doom yi garder seen d'accord <laughs> la même question hein? euh, c'était par rapport à euh, voilà gis-gis en fait dans la commune bi a euh, d'abord jeunes commune loi donc jeunesse loisirs sport donc il faudrait que maire bi ici jeunes Cela dit, à dire que mooy subvention yi ñuy wax mais au-delà des subventions maire aussi war na mën des euh, des actions politiques yi nga xamante ni comme ni wax formation encadrement qui volet l'éducation la bokk mais mu bañ a nekk ci formation euh, ak encadrement kese c'est-à-dire que nit ki ba aussi boo ko formé ba pare moom loolu laa jeune parcelle. loolu laa maire chaque jour suñu leen former ba pare war nañu am suivi mais doo jël ut ay formation teg leen ñu dajale ay diplôme ak diplôme yu ñu yor amul benn sens c'est-à-dire que tey ñun au niveau des parcelles. ñun li nga xam ne moom lañ fonctionné d' abord recensé association yi fa nekk yëpp recensé ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñoom ñooy jeune couche jeunesse bi euh, euh, ak boo munti doon dëgg la dinañ la jox subvention dinañ xool ci yow li nga évolué ñoo fekk si la jàppale la pour le moment subvention lañ mu jox ak emploi ak encadré leen utal leen ay bourses permis de conduire effectivement bon je pense que euh, foofu nuróole nañ ko utal ay bourses yoo xamante ni bourse entière ak demi mairie bi moo koy fay donc subventionné leen jàppale leen ci sen ci euh, sen ci sen ci sen ci seen activité

comme nous, ko waxee on on prévoit de mettre sur place une plateforme pour recenser l'ensemble des étudiants qui ont des diplômes comme ça nous mën démarcher au niveau des entreprises am nañ contact yi te volonté politique baa ngi fi. yow politicien nga yow. <laughs> ok lan ngeen par exemple prévoir pour Génie yi. waaw waaw boo xoolee ak surtout arrivé acte trois bi bu mu ñëwee rek dèjà rek jeunesse jeune bi jeunesse bi centre nañ bu bari bu employé bari jël nañ ko ren lu musul won am ci mairie d'Alfort parce que bu ñëkk da nga ñoo nga jël ma ligé ñu non mairie mom vraiment essay mënul jël parce que ñu budget dafa ndawon trop mais essay ak 3 bu ñëw commencé nañ ligé jeune yu bari lañ jël ñu ligé ci mairie bi don dañ ñu mënu ñu ligé mais ñu bari jël nañu ligé benen moy dafa am ay talent cassé yo xamné dañ nekk ci dëkk bi mun parce que tamit affaire yi tam doo yem si domaine rek mais am ay culture mo ngi fa éducation yeneen volets ñoo ngi fa comme ça si volé volé culture des fois dañuy dañuy prévoir ay journée yo xamné ne ba nekk benn 72 heures bo xamné dañuy ñëw wane sen bopp wane sen talent ñu jàppale leen situation leen beneen tam day nekk semaine sportive bo xamné yow mi di yëngu wàllu si yëngu bëri wala nga yëngu si handball wala volleyball wala daw 100 wala athlétisme parce que yooyu dafa dé dalé fort yooyu lañ bu do déggalaat ku nekk domaine bu nga nekk nga sant sa bopp parce que ñu mëna a ay athlète affaire sécurité tamit parce que dalé fort vraiment affaire sécurité maa ci si ñëw ni affaire sécurité bi parce que suñu maire am na benn compétition bu mu demone compression yi ay commune yu bëri ñoko ko doon si aduna bi yeb la si City Alliance moko ko lancé mais yalla def Dalifort formo ko gagné si Sénégal Afrique de l'Ouest Dalifort formo ko gagné commune bi gagné ko projet bi ñëw mu tuddi Urba PES Urba PES bu mu ñëwee dafa wara jël dafa wara rek Urba euh, PES promotion emploi jeune pour jël ay xalé rek ñuy liggéey déjà rek instant yii nii war employé plus de 70 personnes 60 à 70 personnes yo xamné ay jeune la ñuy nekk tout ñepp jeunes yi nek te euh, lu de FEDAF fédération des associations bo xamné mo association yi nek lay wax vice président si bobu nonu amna na volet bu sécurité volet bobu prévoir na quarante de sécurité 40 agents.

Euh, day ñëwaat ci ñoom buñ ko defulee rek donc def nañ loo xamante ni du dëgg du yoon mais heureusement bi ñu amee maire boo xamante ni dina jël xaalisu askan wi delloowaat ko askan wi te ñun loolu aussi tamit ci loolu la ñu jàng loolu la ñu namp te ñun incha allah loolu la ñuy def ay bayfal lañ ay bayfal lañ donc euh, on est là donc pour servir la population donc voilà donc Lola, mon d'accord euh, Je euh, vraiment remercier toute la population de Fan Point Amitié en l'occurrence le maire sama papa la sama xarit la mang koy nuyu au passage di nuyuwaale vraiment euh, conseil municipal bi di wax wa commune fan Point Amitié que ñun ñoom ñoo ñu fi teg te nous obligation defal leen ñoom lu bëgg je pense bien qu'à la fin de notre mandat nous ferons en sorte que la commune de Fann Point et Amitié soit la commune la première commune résidentielle du Sénégal merci beaucoup Babacar à bientôt. parce qu'elle n'a pas été hein. <laughs> d'accord ok ce euh, dernier mot émission bi Babacar di la santaat bu baax la santaat bu baax si l'invitation bi wax dëgg yàlla rafet na trop di sant nag population Dalifort bi yëpp mënu ma leen fay aw ma seen fay man sama esprit mooy xoolatuma Lalu la ma commune bi defal dedet man damay xol instant jamono ni. Lalu lan la mëna defal sama commune motax ma yéré sama bop guddik beccëk di ñaan nak sama morom zini, nyu jappalé ma ligai bi bu ñu gis na tiers mo ngi mairie ba rek mi dañuy jël xaju ko jox dedet tiers mo ngi mairie ba mbé ñom la fa représenter bu am ambition pour dëkk bi muy commune d'Arefort kon ñu ñëp si ñew ci aku, jappalé ko aider ko jappalé ko ci yéne bu mu am d'Arefort bu ko défé liggéey bu mu bëgg d'Arefort mu mëna ñoñ ñoñ ñoñ dëkk bi dal di gërëm sama mam bubak di content bubak baax quoi parce que lepp <laughs> d'accord d'accord alors c'était ça chers téléspectateurs votre émission Parlons Jeunes le concept c'est en fait la philosophie de l'émission Parlons Jeunes c'est wax inviter des jeunes pour euh, en fait un débat responsable réfléchi et surtout un débat constructif ça c'était en fait l'émission Parlons Jeunes avec des jeunes qu'on a voulu inviter de remercier bu euh, Lamine donc euh, ci ni accepté ñëw ci émission bi remercier bu ah jóge Lamine jógee mairie euh, parcelle Asseni, code mairie fan. Point euh, euh, Amitié donc Thierno Fall jóge mairie d'Alifor Foray. donc di remercier bu équipe technique bi nga xamante ni Andalon, dit papa ah ci caméra bi ak Kabiru papa Dieng di remercier bu papa a donc pour réalisation ak ci caméra bi di remercier bu baax Zal notre chauffeur Adama n'est pas venu aujourd'hui notre maquilleuse je vous donne rendez-vous prochainement pour un autre numéro de votre émission Parlons Jeunes jërë jëf on l'on a cherché, la lumière de pensée parce que l'on sait d'où l'on vient. Et eh.